xale bii tax ñuy marché tey comme ña ñu ko jàppandooloon bàyyi nañ leen bu ñu ko bàyyee du leen wàññi dara ñoom <laughs> du du du du leen jural benn faiblesse waaw ah, ñoom ndax ñoom baaxoon nañ di wax naan euh, force toujours reste à la loi nanga ma ci nanga baaxoon nañ di wax yooyu <laughs> léegi nag mag yi na delloo si xelam te fàttali ko ko yàlla defal mm-hmm. ak parcours bi mu def waaw ah, ak course ñi mu doon coursel waaw bu xalaatee loolu rek xalaatal li ko yàlla rek bu ko defee parce que il est le chef suprême day wax gouvernement ni leen nangam ak nangam ak nangam <laughs> ma loolu leer na nañ hmm. pouvoir judiciaire dañoo am seen autonomie itam pouvoir législatif am seen autonomie waaye moom dafa am loo xamante bi constitution bi moo ko may ci waxal ñëpp waaw bu ko defee nag ay jàppaatee ki yooyu moom doon nañ wax itam ki nga xamante ne bii daf doon ñëw ñu dëpp ko xam nga génération bu nekk fa mu am un révolutionnaire génération bu nekk waaw toolal wàññiwul dara waaw gis koy nangu gis koy bañ mm-hmm. est-ce que langue dans euh, dans la langue française est-ce que way rekk fa am na non non ayu <laughs> ki ni non daa am lu tax mu ni non ki ni woy daa am lu tax mu ni woy woy non non woy moom ñaare doo ko dégg fenn ba bokk <laughs> relative bi moo koy waral relativité bi moo koy waral bu ko defee nañuy yaatal yërmande ji Macky yaatal yërmande ji man nag damaa jóg pour ñoom rassembler leen fédérer leen ci bu ñu ko nangoo yii ñuy def nii ñuy jaar nii ñuy jaar nii ñenaan dama bëgg jiite réew mi ñi naan dama bëgg a laa yooyu yëpp dafa am loo xam ne moo ko war jiitu mooy xam ni Sénégal ku tedd ki ci ba muy soog a jóg daf ne xadd enqanil yow ma xubbul ahli wal watan xandar ci maa li zawil anwaar yi woon fitan li ma gàllankoor mooy bëgg sama réew ak sama ñooñ réew bi egg gu ma ci borom leer yi leer yi ma bëgg a yegg foofu la tàmbalee kii koy jàngale na nu ñuy bëggee si réew